برهام باء وراء ألف ثم هاء ميم مجل فيض تيجان جخن نينام الحمد لله ما شاء الله من نينام ñu nuyu sa doom bi bu baax oto bii nag oto bàyyi la woon Amath Sall waaw Amath Sall ñu koy ñaanal yàlla yàlla may ko jàmm ak tawfiq ku am ngër maane waajur moom am nga lépp nga teg si say sëriñ gërëm gërëm la nga dox si yoon bu leer nekk aarifu billaay loolu du ñëpp koy am. loolu ngëneel la lii nag oto bàyyi la. Hmm. président John Kennedy. Hmm. moo ko may hmm. président Nkrumah. boobu Ghana moo nekkoon Golden House. ñu ne ah. dañuy tibb seen or yi. si loolu leen ko joxee oto bi est-ce que est-ce que. wante moom gisutoon oto bi mu daal di yëkkati oto bi jox ko bàyyi addiya. parce que moom bi muy jàng nekk étudiant si la ko bàyyi ne ko yow loo bëgg a nekk. mu ne ko man damaa bëgg a nekk président mhm. bàyyi ne ko damal nga samp sa nënd defar parti macha bi mu defaree parti ñu daal di ko tëj koso si mhm. biir koso gi la génnee nekk président gaal macha allah bi nekkee président gaal lalal bàyyi tapis rouge fekk jox leen ko oto bi mu ne moom amul lenn lu mën a teralee bàyyi du jox oto bi bàyyi macha allah boo tax bi bàyyi ñëwee boo ko Senghor Senghor ne Makhtar Gane bii nekk si bii hmm. gis nga ko nii filmel ko sa doom bi mu xam ne ko gis nga lii état Gane ma Senghor ma bàyyi ne ko dawaloon oto bi sans sans plat du moo la ko jox man it dama lay may nga dawalee ko noonu autorisation boobu macha allah kon loolu sant yàlla ba mu ñëw si sama baay Imam Assane si yaayam hmm. yaa Fatima de Zahra mooy taaw baay moo ko jënd si miraas si baay daal di ko jox imam man it sama ginnaaw baay man it moom moom ko sama biir mbokk alhamdulilah alhamdulilah alhamdulilah jërëjëf jërëjëf sëñ bi yàlla na yokk yow tamit yow tamit yàlla nga am ay ay ay oto oto oto macha allah yow moom dëkk wa rafet nañ nekk yurdu allahumma salli ala sayyidina muhammad al buraq دغا ابو جله يقطع ولا نيخي نعم. اللهم صل على سيدنا محمد البراق باسكو يونت بي صلى الله عليه وسلم بي مي دم اسراء والمعراج براق لي يغون اك جبريل آه، براق نعم، البراق وتعب وني اللهم صل على سيدنا محمد البراق مل دغاي بري اي اوتو رك جيخ والله جاي جاي خيول نعم، الحمد لله البراق كوكو داي من امول لي ما امول دار آه. ميل ميل ميل ميل جنة ما بابا ندفو اب تما غير اه واو صلاه على النبي دوداي